gannaaw bañ leen nuyoo yéen ñëpp wala jigéen mag ak ndaw bu ci nekk ak santam tey kuréel bu ñu dubbee tas ko force républicaine te ay kàngam yu bëri jokk ci bokk ci alliance pour la république ñoo daje pour amal waxtaan ak waa réew mi ak waa bitim réew jaarale ko ci tas ko xabaar yi ñu leen di gërëm leen sant seen teewaay di gërëm di sant mbokk yi bàyyi seen i soxla aussi ngeen ñëw teew ci liggéey bi ñu amat tey réew bi fan yii ñu weesu fan yii ñu jógee am na ay xew-xew yu doy waar yu jéggi dayoo yu ñaaw yu fi xew ba ay nit ñàkk ci seen bakkan ba alalu askan wi muy alalu nguur alalu mbooloo ndax lépp alalu askan wi la amee ci ay yàqu-yàqu yu bare bari ay yàqu-yàqu yu kenn mënta lim task force républicaine kuréel gi jàkkaarloo na ngeen bi jàkkaarloo ngeen tey bu xam ak ngeen waxtaan ñu ngi jaale réewu Sénégal ci nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci xew-xew yooyu di ñaan yàlla xaar leen ci am jànna fi daw si di ñaan aussi di ci jële ay gaañu gaañu yàlla waral seen i cër ci yëkkati leen ba ñu mën a dox seen soxla nu mu gën a gaaw task force républicaine ñu ngi ñaawlu ba fi ñaawlu mën a yem li nga xam ne xew na ci réew mi te dara lalu ko dul dogalu yoon boo xam ne dafa boole ñaari doomu réew mi muy Adjira bi Sarr ak politicien bi ñu dubbee Ousmane Sonko bi xew-xew yi yoon bi amee te yoon bi mos a dogal yàkkamti woon yi fi am te bi mu amee ñëw malgré seen i bari dinañ jël dogal boo xam ne yàgg nañ ko xalaat seen i bopp ñu fas yéene ko jëfee mooy naataagal mooy daaneel réew mi. daaneel koom-koom bi yàq lépp luy fi alalu nit ndax alalu nguur gi alalu nit ñi la ba léegi sénégalais yépp waa réew ñu ngi ñaawlu taxawaay bi nga xam ne ñenn ci guddi gi ak ñenn ci ñi ñuy wax société civile ñu war a tëdd jeexaanaay ba jamono ji ñuy wax ak yéen ñaawlu wu ñu xew-xew yu ñaaw yu bon yooyu nga xam ne Ousmane Sonko bi fi am ñi mu àndal ñoom ñoo ko amal ci réew bi gannaaw ba dogal yoon jibee ci ay mbir yoo xam ne moom moo ko teg boppam jotewul ak borom réew mi jotewul ak waa ci xew-xew boobu ñu ngi rafetlu ñu waa task force républicaine dogal bi nga xam ne dafa lalu ci dëkk bi nga xam ne yoonu réew mi wane encore moom seen bopp jëlaat nañ ko te biñ ko jëlee bi sukkandiku ci ay jëf yoo xam ne ñu teg seen i gën la te ay preuve yu wér aussi di ay firnde yu wër lan ko Euh, muy dogal yoo xam ne contribution à la jeunesse la muy wane siif bi am na te lu siif bi am na ay yoon yu bari am na te fi mu waree waru fa woon amee ni mu amee waru fa woon amee donc loolu encore une fois task force républicaine ñu ngi ñaaw dogal boobu ñu dogal boobu ñu ngi rafetlu dogal boobu nga xam ne justice jël na ko ci coow loolu xam ne Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñu te parti Pastef ñoom ñoo ko sekk task force républicaine yi di delloo njukkal njukkal bu mucc yoonu réew mi di jaajëfal bu baax a baax aussi waaye takk der yi nga xam ne dañu wane professionnalisme wane posture républicaine ci liggéey bi nga xam ne def nañu ko ba moytu ñu ci ñett moytu ñu bari seen bakkan te delloowaat réew mi aussi ci yoon ba ñëpp mën a tey liggéey li xew ni mu xewee ak ni ko xalaat ak ni ko jëfee ci terrain ak wax bi ci jib yëpp ak méthode yi ñu utilisé ak cible yi ak lépp leen taxoon jóg ki ku ko gis xam ne ni lu ñaaw la te nit ku nekk daan pare ñaaw sant yàlla bi nga xam ne réew mi teel nañu xam loolu ba moytu ko ba fexe ba du faagaagal koom-koomu réew mi ba fexe du faagaagal république ak démocratie réew mi li am solo te ñëpp war ko jàpp mooy lii nga xam moo leen tax a jóg mooy salfaañee suñu unité nationale mooy daaneel koom-koomu réew mooy fexe ba tas réew mi di xaajaloo ci ay xeet ay waaso loolu ñëpp a ko war a ñaawlu ñoom loolu moo leen taxul jóg du leneen lu dul liberté d'expression du leneen suñu réew ko xam-xam ko ci démocratie àddina bi yëpp rafetlu ko et li gën a ñu wax ko mooy communauté internationale bi yëpp. wax ñi nga xam ne yëgit nañ ko jëmal ko ci li xew Sénégal ñoom ñëpp muy États-Unis muy Canada muy CEDEAO muy francophonie ñoom ñu ci wax yëpp ñaaw ñaawlu li nga xam ne xew na ci réew mi te kenn ci ku gi def ko fi te dara lalul ko lu dul dogalu yoon boo xam ne coow li mu yëpp moom moo ko teg boppam leneen li ci bëgg a yokk mooy njiitu réew bi comme ni mu koy faral di defe ci réew moo xam réewu jàmm la réew waxtaan woote na ay dialogue yu bari ci ay pàcc yu bari ci réew bi lu mel ni wàllu décentralisation lu mel ni wàllu foncier lu mel ni wàllu enseignement supérieur acte trois de la décentralisation gaz ak pétrole ak yeneen te loolu am na ay at yu bari yu mu jur ñu ngi wax ñëpp ne waxtaan la mën a amee amul feneen fu waxtaan mën a amee ñuy rafetlu li nga xamante ne ñu ëpp ci réew mi nangu nañ dem waxtaan ak jiitu réew mi te dogal yi ñuy jëlee foofu gëm nañ dogal yi gën a dooleel suñu démocratie dogal yi gën a dooleel encore une fois suñu république la ak suñu état de droit waa task force républicaine ñu ñaan ñi nga xam ne dañoo réer ñi nga xam ne réew mi jëm kanam tax jóg ñi nga xam ne état de droit démocratie ak république tax leen jóg ñi nga xam ne seen bakkan seen nafsu seen intérêt personnel kese moo leen tax a yàq koom-koomu réew mi daal ci Senelec daal ci ndoxu réew mi daal ci commerce yi daal ci banque yi daal ci transport bi loolu moo leen tax a jot leen di wax ne nañu bàyyi seen xalaat ak seen jëfu bon yooyu te dugg ci lépp lu mën a jëmale réew mi kanam task force républicaine mu ngi tàllal loxo doomu réew mi yëpp ñu jóg doon benn bokk ndey ak bàyyi jàppale waaye takk der seen liggéey bu ci ay bi nga xam ne koy amal taxaw temm aussi ngir lu jëmale réew mi jëmale koom-koomu réew mi kanam te jàppale président mi nga xam mu def ci réew mi kenn leen di gërëm leen sant wasalaam